bismillah président Macky Sall day ah, daal alal ji nga xam ne nag maanaam réew mi ko bokk ne nañu koy pasa pasare day nañu ko baax le soleil yéene kaay ne dama ne la alalu askan wi la ñuy dépensé waaw nguur gi day wàllum sakanalam nga fam nekkoon fa la nekk ba léegi ne la day ma ngay maintenir rek kon kab ba parce que koom-koom gi nga xam ne kon jëlee nañ ko ci toll na ci ñeen fukk ak benn ci ay milliards yu daal di toftal ñaari téeméeri millions la la wax oto yi nga xam ndaw yi lé président Macky Sall nee na bu dara des nañ ko defal kon ay rapport laataa njeextalug 2021 bi lée 24 heures yéene kaa ne président Macky Sall nag ma ngay lëmba dee ak fuwe ministère bi nga xam ne kon moom la nee ne ma Tall kon jiite Chérif Habib Aïdara mooy maire bu commune bu Bokontong ci tribune yéene kaay waaw nee na ñun dee am nañu xalaat te am na tamit lu ñu joxoon président Macky Sall mi la ci lu jëm ci wàllum xëyu ko ne yii di emploi des jeunes ko yéene kaa oto yi nga xam ne nguur gee koy jënd waaw diggante 2012 ak 2020 ñaari téeméer ak ak fukk ak juróom ñaar ci ay milliards lañu di dépensé allahu akbar maanaam ci jënd oto defaraat oto yi ak seenu entretien deux cent quarante sept milliards ci joojee nga xam ne nag réew mi day mi ngi dund ay jafe-jafe waaw terminé yéene kaay nee na aji ci la ñëpp kër daal di wax ilaha illallah cey bàjjo bi aji saar waaw daal dinay sambal ne ne nag Ousmane Sonko mi lé parce que aji nee na Ousmane Sonko day bis bu ki ne jotut a sëy man ma daal di retiré sama plainte bi lé continuer sama naqar te nag bu ñu sukkandikoo ci aji saar day moom bàjjo bi waaw nee na mësul xalaat ne bu dee déposé woon a plainte ngir viol ak violence te kii nga xam ne kon moo jiite opposition bu Sénégal day kenn du ko aji nee na daa bu déposé plainte ci kaw Ousmane Sonko kenn du ko cay bàjjo bi aji Sarr nee na te su xalaatoon ne tamit mbir mi nii lay mujjee nit dee caag yooyu waaw bilaay du ma ko def bu su ma xalaat li le quotidien yee ne kaay ne coowal suite ba te day waaw aji Sarr daal dinay simmee ko nag dindi na muuraayam nga de wax na lépp moom aji Sarr mi lée ci les écoles yéene kaay source a réew mi quotidien ak laas waaw nee na woon sama plainte wax <laughs> critique yéene kaay ne yow xoolal ma aji saar mi la bàjjo bi askan wi dañ ko doon xaar ngir nag mu indi ay gindi kon ci dossier bi la xóotal nga ay leeral deg sax jiixii jaaxaa bi nga xam ni koon moo nekk ci bopp sénégalais yi mën a daj waaye aji saar mi ñu gis démb day daa mel ni dañ koo suxi néewal ko doole rooti sirru gi nekkoon ci moom maanaam dañ koo affaiblir aji saar daal di dugg nag ci am muuraay soppeeku ibaadu di sellal deg sax waaye aji day moom saara mundu ah. tuuma nga xam ni kon moom la laloon ci ndoddu Ousmane Sonko gi la ko gën a wax naar day taali Sarr nee na waxuma ne sax fooye gi nga xam ne kon daf ma ko doon fooye waaye Ousmane mi la daf maa ëmbal tey bàjjo bi aji saar ci les écoles yéene kaay waaw nee na Ousmane Sonko def maa xëcc biif ma jàpp sama baat bi lee tëral ma ca suuf bi ma capitaine bi laajee kan moo la ambal ma ne ko Ousmane direct news ne moom aji saar day waaw bataaral gi nga xam ne kon moom la nekkee woon day daal dina fay génn wax na tamit yu doy waar doy waar parce que nee moom aji dañu maa tëddee ay yooni yooni yoon nag laa wax aji saar day waxtu samay ma yàqal fee am parce que man mosuma dajee ak président Macky Sall l'observateur ne tey Sarr tey Sarr Sarr de segg na wax yi nag daal di koy dëj cax te gis ngeen foto bi ngeen gis ni kii mooy bàjjo bi aji Sarr dëgg a ngi nii sur saane aji Sarr a wax di wax di wax ba wax rob bu xonq bi benn ci ay jabaru Ousmane Sonko di sol aji yemu ca de parce que Sarr mbundu day nee na mësul gis Macky Sall mësul gis sa Macky Sall mu ñu tof ci miir yow yaa yo banjo bi 24 heures yéen a coowal maître Dior Diagne ak maître Pape Samba Sow waaw mais ñi est-ce que am nañu intérêt di dem ci procès tribune yéen a kaa ne Sonko day wër ndomba Macky Sall ci boppam waaw loolee la wax fi nekk nii de ginnaaw ba mu seeti ngeen ne Khalifa Ababacar Sall mi jaar wal fajiri dem na seeti njiital grand parti ga Ousmane Sonko nee na opposition bi daal nañ leen booloo doon benn football jëlee fi Macky Sall mi lay ko de Malick Gakou moom seeti woon démb day ci les si ko yéene kaay waaw nee na xanaa xamoo leen ne mi lay amul doole de déedéet opposition bi tasaaroo gi tasaaroo moo tax ñu néew doole Macky Sall n'est pas fort c'est l'opposition qui est faible de par ses divisions dëgg la évidence yéene kaay ne déggoo leen ma dama ne la Ousmane Sonko fi ne terminé yéene kaay ne Madiaye Mbodj waaw nee na Guy Marius Sagna altine di ñëw day attaque bi dana ko déglu alhamdulilah libération a Sëriñ Muntaxa Mbàkke waaw parce que moom day sëtu Sëriñ Tuubaa bi le ginnaaw nag juróom fukki millions yi xam ne kon joxe na ko ngir dimbalee ko ñi ca loru diggi mu digoon ñii di société civile ak opposition bi M2D waaw Mbàkke Mbàkke ban ca Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène Birame Souleye Diop Abass Fall ak lu tolloog fukk ak juróom ci ay manifestant dinañ leen déglu diggante altine ak talaata jii di ñëw te procureur bi day waaw nee na bu leen bañal liberté Moustapha Bassirou Mbacké bi la yëfu jamono yi waxu ci dara te teewul moom Serigne Bassirou Poroxaan waaw jàng na français ba di ko jàngale laa la wax alhamdulilah cay mbat laast waaye gros bras yi nga xam ne politiciens yi dañ leen di su suñu demee daal ba ay nervi di buur ko bu ma ko bu mi jaaxal na ma Momar Jong day journaliste waaw nee na nguur gi ci boppam taxawaayu nëpp nëppal ak fay lépp loo xam ni ko nervi yooyee daal dinañ cay dakk commissaire Boubacar Sadio na man dama rus dama rus lool bi ma gisee ay nervi nekk ci booru police évidence yéene kaay ne ñàkku kaaraange ak yorinu émeutes yi fi amoon Antoine Diome day boo ko doon noté loo koy jox Sud Quotidien ne waaye torture yi ak babir yi ci Sénégal gi waaw lii daal def lu ne weng te dara du la jëf fekk laa la wax Seydi Gassama waaw nee amul benn nguur goo xam ne bëgg nga ñu lay tuumaal wàllum torture te Sénégal gi mais loolee am na fi nuy def nag ba xeex wàllum jar gi day Birahim Seck forum civil waaw nee na ñu indi ay copte ci CREA gi lée of nag tamit ñu kattanal ko ba mu mun a moom ko kattan tamit muy dogal cay mburoog Sow day wax na l'observateur ne moom wax na ñaari yoon waxam day jarul dóor sa doom parce que professeur Abdourahmane Thiam day même Idrissa Seck bu doon am na ab yéene day fi mu communiqué moo baaxul jamono crise la professeur Thiam ne sénégalais président Macky Sall ci boppam lañ doon xaar looloo tax ba ay kàddu yu Idrissa Seck yooyee waaye nit ñi bàyyiwuñ ci xel sax fii la dugg génnee ne <laughs>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 mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement